di leen baal àq di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa sëriñ Mouhamadou Moustapha si yal na yàlla barkeel ay liggéeyam ak ay taxawaayam di ko ñaan tamit mu joxal ñu suñu ziyaar kilifa tedd yam yu tedd yamu jóge teewal leen fii ci ndigalu kilifa yi dañ ñu wax ne temps bi dafa xat ca kilifa gi dafa am yitte yu bari yu koy xaar moo tax rek ñu ngi jéggulu ci ñu teel a commencé programme bi teel koo dimbali mu yiweeku moom ndax suñu bopp la ñuy dimbali ndax da ko am kilifa gu xat da nga koy sakkatal la ma ngi daan wax su ko defee délégation yi fi teew yépp dinañu leen lim mais dañ leen di intercaler maanaam du ñu ma ci dugg léegi mais au fur et mesure que nit ñi di wax dinañ lim délégation yi kilifa yi fi teew yépp incha allah ah protocole bi nag nii la ko kilifa yi tërale teel ma dañuy jox suñu imaam Serigne Mor Mbay mu defal ñu ñaan bu ñu noppee ñu jox suñu kilifa El Hadj Daoud moom it mu sànni kàddu bu ñu noppee ñu jox suñu chef de village sëriñ lamin Sarr mu sànni kàddu ci kilifa dëkk bi bu ñu paree ñu jox suñu kilifa El moo Modou Khoule moom it mu sànni kàddu bu ñu paree ñu jox monsieur le maire de la commune mu dalal ay ganam moom it sànni kàddu bu ñu jógee foofu ñu jox kàddu le représentant du xalif de Ndiassane moom it mu sànni kàddu bu ñu jógee foofu ñu jox madame le ministre Ndeye Tické Ndiaye ministre chargé de la communication ah su ma juumul noonu la madame le ministre ñu rectifier après euh, madame la ministre de l' économie numérique on me signale à côté merci beaucoup de cette rectification allez donc euh, madame le ministre Ndeye Tické njaay la ñuy jox kàddu bu ñu noppee tamit autorités yi nga xam ne teew nañu fii yëpp dinañu leen tudd ñu lottu nañu ci sant leen waaye kilifa yi xam nañu leen rendre nañ leen compte. dina leen tudd kenn par kenn sant leen gërëm leen incha allah ah kon ci noonu rek dañuy wëyee ndigalu kilifa yi jox imaam mu joxe ñaan ñuy tàmbali jataay bi sëñ Mor bismillah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله wasalaatu wa tasliimu ala sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi walaahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yi fi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di baalu àq yal na yàlla boole ñu jégal di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa suñu sëriñ suñu xarit sëriñ Muhammadinil Moustapha jaarale ko ci maamam sëriñ Mor Jàmm si ak mboolem kilifa yi fi nekk yépp ñu ngi leen di nuyu ci turu alxaaji Babacar sal di leen ziyaara di yóbbante sëriñ bi suñu ziyaara ci suñu wéyjur wa seydi alxaaji si Sy annaatiqul aama li tariqati tijaniya ayyadahu llahu wa nasarahu mu jottalil ñu ko alxalifatul aama li taifati tijaniya sëriñ Babacar Sy Mansour ziyaara istimdaad ziyaara boo xam ni dañuy fàttali ni ñun kat njabootam lañu njabootam lañu tey njabootam lañu ëllëg ci turu kilifa yi nekk ci kër Thione yëpp xam naa loolu ci gàttal rekk lañ ci doon jiital ci turu kilifa yi ñu jàng fatiha salaatul fatih ayatul kursiyu qul huwa allahu ahad falaxeeg naas si tëji ko salaatul fatih ñaan yàlla ci mbaaxam yal na yàlla mottilil ñu jotaay bi te barkeelal ñu ko ñu tàmbali ko ci bismillahi arrahmani arrahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin am na lu muy wax di ko dénk sama bopp muy Serigne Moustapha ñu ngi sant bu baax di la gërëm di la ñaanal bu baax xam na ni amoo jot waaye yaa ngi ci programme wóor na ma ne am nga yeneen programme ñu ngi lay xaar madame le ministre dégg naa léegi ñu ne am na ñu koy xaar ca Dakar yaakaar naa ci ngoon ba léegi moo te toogaay bi yàgg na waaye bis bi jar na ko bisu Seydina Mohamed boo xam ni ki ko kere mooy Cheikh Seydi Hadji Malick mu tasaate lii ci réewum senegal tasaate ko ci Afrique mais senegal fii ci kër Thione Sarr delluwuñ ginnaaw ci loolu ci salaatul fatiha delluwuñ ci lislaam delluwuñ ginnaaw ci daara yi waaye war nañ seeraat sunu bopp ñun ñëpp xale yi parce que seen protocole yi ngeen doxoon ngeen xoolaat ko bu baax a baax parce que monsieur le maire Ousmane Sarr bu dul dara ay waaye suñu dëkkandoo la monsieur le maire yàlla dogal na moo fi suñu maire yàlla dogal na tànt bi ñu toog lim ciy def ñu ko ci def bariwul lum ndaw ndaw mu ngàbbu 10 millions def ko ci lii moom du xaar protocole lu mu wax dañoo war a jaar ci loolu xam ne dafa rek la jublu ci loolu ku jëlee million sànni ko fii def ko fi xaarul kenn tàggawul kenn te yàlla tax ak yeneen yoo xam mu ne su ko wax nañ ko cëral parce que yàlla cëral na ko ba pare parce que Ousmane Serigne Abdou Aziz moo ko ñaan te dama leen di wax toujours Serigne Abdou Aziz Al Amin yàlla yàlla yàlla ko leeram waaye man de kum ñaanal moom laa gën a wóolu kum ñaanalul te am na ñaanu Serigne Abdou ñaqal na ko te du ci du ci ay caaxaan xaalis bi ne ci poosam boo ko bëggoon jël léegi tuddal Serigne Abdou si mu jox la ko léegi kon bu taxawee woo ay taxaw waa kër Macky Sall ñëw ñëpp ñëw taxaw te Macky Sall nag ku ne ci réew mi war ko man a jàppale parce que dafa nekkoon benn dafa am benn euh, affaire boo amoon ci Sénégal benn roi des arènes bu sonal Sénégal trop Abdoulaye Wade xeex naa moom ba sonn xam ngeen kan la mooy courant bi doon xuy moo ko xëy jàgg ko dóor ko fële benn yoon mu dem yoonam waaye kii war nañ ko bàyyi xel ak kan tant yi mu doon def ci Tiwaawan yu bëri wàññi na ko xoolal li mu def ci Tiwaawan te du dëkk yëpp la ko def toj jumaa yi def kër sëriñ yi ma ne président bu ñëw yàlla na mel ne moom waaye yombutaam kon nag dafa am loo xamante bu taxawee di def ci kër Thione bu ñëwee yónnee na daaw un million yónnee war un million te kenn xamu ko ci man de bu may sànni carte dinaa ko sànn ndax ci boo amee leneen dinaa am leneen naa ko bàyyi xel te Ousmane Sarr mii ko mat a bàyyi xel la parce que lii ba mu dugg dama ko tere woon ne ko mais moom xam nga lu muy liggéey dafa yor entreprise am di liggéey di def fii di liggéey di ko andi fii di liggéey def benn maire ci Sénégal li muy def benn maire du ko def parce que maire bu ko def ab dof nga te Ousmane Sarr Sy dof bu ñëw ci yéen la nañ ko sagal jàppale ko taxaw ci gën naam suba ngoon temps bi dafa xat asalaamaaleykum taala wa barakaatu wa taabiina lahum bil huda ila yawmi diin ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم سيدي أحمد بن محمد بن سالم التيجاني وعن سائر خلفائه عليهم أجمعين mbokki jullit yi fi daje ñu ngi leen di wax salaamun min allahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu nuyoo boobu nag ñu ngi ci jiital sunu maam man ak suma rakk ji di sëriñ Papa Abdoul Aziz bu sëriñ Maodo bu sëriñ Cerno sëriñ eh, Habib bu sëriñ Babacar Sy Mansour yabal ko ngir mu ñëw teewal mag moom ku ci jëloon kàddu mën ngaa jotal kàddu Seydi Hadj Malick waaye nag kii fi teew tey di sunu maam di sëriñ moor jàmm si tabarakallahu turandoo dëkk ci dëkk bi di maamu ñii tabarakallah kon bu fi teewee dañuy jotal rek waaye moom moo moom lépp ndax mooy bàyyi ci ñoom sëriñ Mansour ak ñoom sëriñ Abdoul Aziz ñu jox ko orma bi béggee ko lool tabarakallahu ak mbooleem ñi fi daje te ñu mel ni nun ci xadara malikiya bokk ak ñoom service ba bokk ak ñoom kilifa yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye itam ñu nuyu kii nga xamante ni mooy sunu baay di sëriñ Daawur sëriñ Daawur ku ne xam na li mu doon wolof dafay wax ni koo xamul noo koy woowee eey nga koy wax waaye koo xam la mu doon boo koy woo boole ci cër ya ko yàlla dogal muy mag bokk ci mag ñi bu nu ko nuyoo nuyu nañ ku fi teew di mag ku fi teew di mag tabarakallahu bokk ci tund wi te dëkk bii ku ne xam na ni du ab dëkk penc la ay penc penc la ndax àdduna boobu la nekk adduna boo xamante ni nit ki da nekk ba di làmb lépp na di jokkoog lu ne di waxante ku ne local tey ñu ngi koy reproduire muy dem ci ay vitesse yoo xamante ni kenn mënul natt vitesse fii ci kër coon ñu ngi fiy daje amaana ku jël waxtaan wi mu ngay daw ci àdduna fu ne foo xamante ni jokkoo ba yegg na fa rek dana fa yegg nga gis ni léegi lépp ci loolu lañ ko dugal boo tukkee tuuti sax boo xamul fànn bi yàlla xam na ni boo moytuwul dangay ngay doon ku tumurankee tumurankee ndax lu ñuy doxalati ci fànnam lañ koy jaare boroom réew mi nga xamante ni tey bañ na ko ba waxal ko bëgg na réew mi xëy-xëy rek décoller décollage boobu tax mu indi politique am boobu mu wax ñoom ñii fi ne amatuñu fu ñu toog sax diggante bi mu fi toog sax man damay wax ni wax dëgg yàlla jàmbaar la ndax koo xamante ni yaa ngi toog waaye yeneen i baraba ngay séntu yeneen i liggéey ak lay xaar te borom lim la teg mooy ah léegi nag fast track ngir gaawtoo bëgg a defal Sénégal yi li ñu séntu ci moom te yaakaar ko ci moom kon yaakaar naa ni bu ñëwee ci dëkk bi ah xale yi jàmbat ko seen jàmbat jëm ci ah li lycée baa ngi fii wala CS bi njaboot gi ñoom it bëggatuñoo yem rek ci doon ay baykat kese kese kese waaye dañoo bëgg doon baykatu kuslëf ndax suma wéy jur sëñ Abdoul moo ma waxoon ni léegi lu waay di def na ca booleeg as lëf bu dee ab sëriñ doonal sëriñ ak us lëf bu dee ministre doonal ministre ak us lëf bu dee baykat doonal baykat ak us lëf bu dee sàmm doonal sàmmkat ak us lëf bu defee lu ci ne boo ca boolee as tout rek boo moytul as tuut loola moo lay jëriñ ba loolu tax njaboot gi di ko sàkku bëgg itam nga jàppale leen ci seen càkkutéef jëm ci wàllu njàng ndax ku ne xam na ni eh, kuy gëstu rek soxla woo nga eh, yoonu eh, numérique ci sa yoonu gëstu ndax moo lay gën a gaawal te lu bëri loo war a xam defe naa dajaloo na léegi ci àll xaasu biir yi nga xamante moo fi kon nag ñu ñaanal la yàlla yàlla na la yàlla defal ndam ci mission bi ñu la dénk yàlla na la yàlla jàppale yàlla yàlla taxawu yàlla yàlla may la nga doxal lu kawe njortu borom réew mi mu jëm ci ndamu senegal ak ndamu njabootu Sénégal yàlla defal leen jàppale gi ngeen koy jàppale yàlla na ko yàlla euh, téyel boppam président Macky nag ah nun defe naa lu bawoo kër Alaaji Mari soo ko wanee gannaaw wan nga ko gannaaw waaye fayoo naar ba xoromam fayoo naar ba xoromam defe naa diiru ñaari at yi fu ma def waxtaan wax naa ko wax naa leen ni man maay ki gënoon tàng ci Tiwaawan ci xale man mii maa toog diingat ko moom ci boppam ndax dafa ñëw gisee teg sëriñ Abdoul Aziz sama wéyjur ni ko dama bëggoon nga may ma ma defal mag ñi dawal sama yéene ci Tiwaawan muy la mu fa def ci biir Tiwaawan ba mu waxi ñëpp ni pat man dong ma àddu ba ma àddoo dama ni sëriñ bi bu dee wax na ko ungu lañ koy tontu ndax teraanga yi dinaa la yàqal ungu doy na ci ba keroog ngay gis yàq ba ko ah, mu ñëw jom ji yóbbu ko ci rek ndeysaan mu ñëw defar defar la mu fa defar lu mu néew néew néew doy na ndax moo tane ki ko fa def lu mu néew néew néew doy na ndax am na ku amoon même appareil ba am même moyen am même possibilité walla sax lu ko ëpp amaana te defu ko kon nag ki ko def te moom mu def ko xëy xëy defal ko mag ñi waay waay waay mag ñi war nañoo mën delloo ko jukkal moo tax ca gàmmu sëriñ Abdoul ma ni sëriñ Pape Malick mu ngi nii yàgg xalifa bi yéen ngi teew waaye ñaanal leen président Macky ndax booba la mu jëmoon muy nii ñu romb faf yàlla nangu ñaanam man mii maa wax loolu te la tax ma wax ko mooy teranga la ku toll ni moom ñëw fekk si kër Seydi Hadj Malick defal leen la mu leen defal mu dem noonu rek ñu naan aha dañ koo yeeyoo déedéet ak mbaadoole la Sëriñ Mansour moo daan wax naan mbaadoole weesuwul lu la waay defal nga buux say lex nit daa ko yeeyoo boo ko la defal nga sant wàññiwul dara sant feeñal jëf la te feeñal jëf yàlla ko digle ngir ki mënul woon jàngi ko ci loolu defe naa wax nañ ko waxati ko waxati ko waxati ko ba sax léegi mu sooy bu defee kon ñaani ci def ñu ñaan yàlla na ko yàlla jàppale may ko ndam ci confiance bi sénégalais yi jëlaat teg ko ci jëmm mu wàcce ko ci yéen ñi koy jàppale ci gouvernement waaye ñu ñaan ñaanal Sénégal Sénégal yàlla na fi yàlla gën a toog ci jàmm gën a def barke ma wëlbatiku nag xam naa ni danaa ko gàttal lool ndax li ëppoon solo ñu war koo wax wax nañ ji ba tey waaye dañoo jëm ci nawet te baykat yaakaarul lu dul nawet Sénégal li ëpp ci nit ñi di yëngatu ay baykat lañu baykat yooyu ñu ngi jëm ci nawet daaw ñu jàll nawet bu xaw a metti li ca metti mooy taw bi dafa naawe wet ba am na walla boog dafa gàtt te nawet dañ koy ñaan nawet bu nangu ci am réew dañ koy ñaan mag ñi dañu ko daan waajal di ko waajale ay ñaan di ko waajale ak a moytu di ko waajale di jéggalu di ko waajale di moytandiku mooy mooy yi parce que mooy mooy bu bëree ci aw pénc yàlla dana leen dóor sànjam daan nañu dégg ñu ne ah préfet jël na walla boog euh, commissaire yabal nañ ko sabar yi daan am amatul wala dañ koy wéer ba nawet bi passé boog def ko sax mbiru pël ba ba muy nax yàlla day def doom ju mu jur doom jee génn àdduna doom ju mu jur doom jee génn àdduna eh, ah, doom nag yàlla laa koy tuddee ñuy dund di dund ba doom jee yàlla mu judd mu juddoo mu fàtte xaat niisal ko mu niisaloon ñu ni ko ah yow de kam da nga waxoon ni yàlla ngay tudde sa doom mu ni kam dama ko ko doon nake rek waaye ñu nu naxe ko yàlla daje ci pénc yi mag ñi joxe ay dog ñu def ay listigfaar moytandiku ko pour benn période période boobu buñ ko moytandikoo ba am li gënal buñ cay delluwaat sax dellu ca waaye gënul sax defee mooy mooy yu ndaw ndaw yooyu ngay xeeb mooy dema dema dema dema dem ba boo moytuwul day daal di bloqué lépp loo xamante ni daan na jóge ci mbaaxu mag jëm ca yàlla pour sàkku intervention ko defee loolu nag moo tax ma ni bu ñu ko jógee fu may defati waxtaan danaa leen ni daje leen ngeen di def ay dog jéggalu seen borom ñaan lii li tax ma def ko dal na ma ca buleel xanaa ñi doon ñëw ca tool ya doon nañu seetlu ak man fu ma jógee Tiwaawan dem Medina bu nu defee waxtaanu tool ya bay tëj bala ñoo tëj danaa jox ña toog ñépp dogu listixfaar la muy néew néew def ko jéggalu sunu borom sàkku taw waaye li ma seetlu mooy fu nu ko defee bala noo jóge ca tool ya yàlla ji wàcce taw bala ñoo ca tool ya yàlla dana wàcce taw yenn saay bu nuy jóge ci tool yi nekk ci yoon wi lanu taw bi dal ren yàlla wan nañu ci boobu moo tax ma ne danaa ko partager ak ñi ma bokkal ma wax leen ni nun baykat yi nanu delluwaat càkkutéef bi mag ñi daan sàkkoo taw ca Tiwaawan mag ñi xëy nañu xëy ni sëriñ Babacar si ah sëriñ Babacar laajte lu xew lu xew ñu ni ko ah, mag ñi de ñooy ñaan ca rawdu Seydil Hadj Malick mu ni ah ma nekk fi nekkal fi moom ñuy ñaan ci barkeem taw ma nekk fi te yëgaluñ moom baax na siram dana tawam déet ñu toog semaine ba ñaari semaine gisuñu taw mag ñi delluwaat ci maam El Hadji Mansour ni ko dimbali nu nga jéggalul nu ko nanu baal mag ñi àndandoo maam El Hadji Mansour àndandoo ñoom ñëw ba ci sëriñ Babacar ni ko ah, mag ñi day ñoo doon sàkku rek nga dimbali leen comme moom dafa fonk Seydi Hadji Malick fonkaale lu mu am kersam dugg mu daal dugg ci biir dugg toog ab diir génn ni ana dalli dalli taw yi waa toogal rek ñu yegg te kuy waxtaan kenn du ko dog di la wan ne daal dëkk bi dëkku mbaax la dëkku teranga la dëkku ñuy yiw lañu dëkk yi jàmbaar ñu ngi liggéey seeni njaboot ñu ngi leen di teg ci yoon lii fi Ousmane wax ak alxaaji Modou lu ci nekk lu ne dund nañ koog ñoom fii ñu jox kilifa yëpp orma kii c'est un intrus bokkul ci penc ni du waa penc ni parce que waa ni mel ñu nii léegi ci dund yi la bokk waaye bokkul ci penc nii fii penc nii ay pencu daara ay mag ñu baax ñoo fi ne ay mag yu diine magu alquran kenn na ngi nii toog waroon naa doy sëkk ci ñu wan ko ñu ne kii kat moom ñoom Serigne Mansour ak ñoom Serigne Abdoul Aziz ak ñoom Serigne Cheikh ñoo àndandoo séq bëri mooy kilifa pénc mii ak nag ñeneen ñu ñu mën a tudd ñu fi nekk gaaw ci ne kii nga xamante ni woy juróom moo jullee Serigne Babacar Sy mi ngi lay ñaanal yàlla yàlla gunge sa yoon te defal la ndax mottali la si mébét waahiran wa baatinan te may la lii borom réew mi yaakaar ci yow lu kawe sa njort yal na yàlla defal ko ko ci yow ngeen def ko muy ndam di ndamu Sénégal tabarakallahu di ndam képp ku bokk ci pénc fa tabarakallah foofu laa koy yemale xanaa jox sama maam mu ñaan ñaan ni kii ba nekk maa nga ñëw nekk sëriñ déedéet ba mu nekkee xale la nekk maa nga sal mustaqim def ko ci xorma moom la yam mooy sa yàddu kon ñu joxee ñaanam gi nu bokk ko jàng fatiha salaatul fatiha kursiyu ixlaas tëje ko salaatul fatiha maamam nee na wa daa ku ñaane bi si yii ma wax alal yaqiini ànd compté du yëpp bi maa raawa min al matini la ci des bu duggee ci ndégam mu eggale ko dañ bokk jàng fatiha bu sa salaatul fatiha teg ci kursi qul walaw ahad falaq ak naas tëjee ko salaatul fatiha si yàlla yàlla yokk sa fan yàlla yàlla yokk sa teraanga mission bii nga téye sa bàyyi dégg la ko bi muy dund ñu ñëpp laa soñ ànd allahu la ilaha mbokk jullit yi mbokk waa kër Thione Sarr waa kër Chérif Lo département de Tivaouane région de Thiès je dirais Sénégal maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di rafetlu sama jataay tey jii fii ci ndigalu président de la République du Sénégal son excellence monsieur Macky waaye nag bala may sori damay nuyu di ziar sëriñ Moustapha si ibn al Amin si maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbooleem kilifa diine yi fi toog yépp dégg naa ne njaasaan ñi ngi fi bu baax dégg naa ne tubaa ngi fi waa kër njabootu si di agent magique yépp ñi ngi fi représenté wu kon maa ngi teg ci sa loxo sama nuyoo sama ziar di wax ne nga tasaareel ma ko euh, ca sobre waaye nag maa ngi beral tam nuyoo muy Ousmane Sarr bi ma nuyoo waa dëkk bi yépp chef de village yi fi nekk maire yi fi nekk maa ngi nuyu le maire de Kër Chérif Lo di nuyu Ousmane bu baax nuyoo boobu na dafa génn sama gémmiñ waaye président de la république moo ma ko yóbbante ne ma soo demee nga siyaareel ma képp ku fa jóge kër El Hadj waaye ku fa ñëw repré parce que xam na ne yéenay ñëw euh, taaral bés bi waaye képp ku jóge ci kilifa diini bu fi fa toog nag ma ko ziareel nuyul ma ko nga nuyul ma ñi fa ñëpp jigéen ñi tam maa ngi leen di nuyu bu baax gis naa ni ngeen toogee jataay bi taaru na li ci des nag mooy sëriñ bi ñu wax tànk yi tànk yi mënula ñàkk ndax lu tax mooy kóllëre préfet ñoo bokk délégation bi duma ma leen nuyu ñoo ànd eh, wóllëre defe naa ne moo ñu fi indi ak ak bokk ndax Sénégal ñëpp a bokk waaye Ousmane tam dafa nekk wóllëre président de la République mu yëg taxawaayam ci wetam bi mu àndeek moom ba tey gis na yokkute yéen ngeen nekk euh, nu ñuy wax euh, sëriñam di sëriñu président ñaan yi gis na ko nee na naa ko waxee noonu waaye gis na jàppale gi ndax euh, ku ne gi xam nañ commune bi lu mu fi def département Tivaouane gis nañu seen taxawaay sëriñ bi sa diggante sa diggante sa famille ak moom loolu defe naa ne lu leer Sénégal la kon nee na gis na yëpp yëpp egsi na mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, Ousmane nag di nit ku baax nit nag bu la defalee lu baax da ngay bu xewlee da koy fekk ci ay bokkam ne ko jërëjëf loolu bokk na ci tànk yi ku ne xam na kër Thione Sarr moo tax tey délégation bi ngeen gis ni mu toll loolu yëpp pour nag ñu sagal ko ndax nit buy ànd ak yow bàyyi léppam topp la dékk ngeen li mu wax tey ji nee na maa ko bëggal sama bopp kon maa raw mënu ko fay xanaa ñëw rek wan ko ne ko moom itam ku ko fonk la waaye bu naka maa la raw mënu ko fay ñu ànd ak ñi ñu àndal ñëpp naroon na fi sax ëpp waaye assemblée tey day liggéey loolu moo tax député région yi ñëwuñu député région bi laay wax ñëwuñu waaye mi ngi wan leen nag ku fonk bés bi la ah di ñaan yàlla aussi bu di naa ko waxaloon sëriñ bi nañu ko ñaanal ndax ñaan yi ngi ko doon ñaan ñaanal gis na ko muy nag ku bëgg Sénégal ku am vision ba indi Sénégal fi mu ko indi tey ci xarañam waaye ci seeni ñaan ak seen accompagnement am na lu mu fu mu ko bëgg yóbbuwaat d'ici deux mille vingt cinq loolu duma ko toj xaju fi waaye ci émergence rek laa koy tënk mooy dëkk bi développé du ko def lu dul jigéen ñeeg góor ñeeg ndaw yeeg mag ñi sëriñ si jàngu bi ñoom la koy defal kon man mi ngi mel ne nag ñun ñëpp la loolu daf ci soxla tam ñaan mu ni ñu ñaanal ko ndax la mu mënoon mu mën lu ko ëpp waaye sëñ bi mi ngi sàkkuwaat ñaan ndax looy def rekk na nekk ci jàmm ndax Sénégal am jàmm nit ñi am jàmm mu am naataange loolu kilifa ku ko am ci sa réew mën nga am yaakaar nekk ne li nga sumb ah yàlla mën na def nga yeggale ko ci jàmm ak salaam mu ni mu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ko loolu li ci des nag mooy rek façade kóllëre ak Ousmane nee na gis na sa taxawaay gis na ko Thiès gis na ko ci senegal gis na ko ci kër Chérif gis na ko fepp te loolu la ay mbokk wax jataay bi nag dinaa ko rafetlu te bu dem bu ma demee dégg naa doléance yi ngeen fi wax dinaa ko yeggale am na yoo xam ne ci man la waaye am na yu nga xam ne dafa dépendre ci ñeneen bu soobee yàlla bu ñu fi ñëw déwén bu neexee yàlla ku fiy ñëw dina xam ne dana am ci loolu bu lépp saafarawul itam dana am lu ci saafara bu neexee yàlla kon mel na ne daal tey jii Eh, affaire bi fenn dafa am rek lu ma bëgg a souligner eh, su ma ko sëriñ bi mayee mooy dama gis tey fii lu bare ci lecture dama gis diine ju mat waaye dama gis culture dama gis dal dama gis taar dama gis ay mbokk yu saafante muy loo xam ne loolooy Sénégal ma rafetlu ko ne woon nag bala bay dem il faut ma wax ko waaw dinaa ko wax ne que ne lii te dinaa ko yeggale parce que lii rek lañu bëgg bëgguñu leneen jàmm salaam diine ci boobu mën a bokk asalaamaaleykum wa rahmatulah yi asalaamaaleykum wa xam naa ñu nuyoo rek joxe micro bi bu ko defee bu joxe ministre bi mu jàlle li muy jàlle sëriñ bi ñaanal ko moom moom itam mu continué ci service bi parce que ñoom duñu sonn parce que kuy ànd ak suñu kilifa gi ñuy àndal taxaw naa damaa sonn du ñu ko wax kon ñu ngi nuyu mbokk yépp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Moustapha Sy ibnu sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin mu jël nuyoo bi joxal nu ko suñu xalifa bu tedd bi di Serigne Mbaye Babacar si mu tasaare ko bu ñu paree ñu nuyu suñu mbokk njaasaan yi marabu kenn desul